ci jamono bu nga xam ni tariqa yi wesaaroo na ci àdduna wax naa ni bindoon naa ci lu ëpp juróom benn fukk waaye ba am solo dëgg-dëgg mooy bi aqtaab yi amee ci seen lox dem naa ba gis tariqa bu nga xam ne ki ko amee xaleel la ndax papaam dafa gaañu ci accident ñu ni ko yaa mu daldi leen jiite te jàngul mu dellu ci li Maodo wax ni bés bu Sénégal di tas baatu wala du cheikhe ka cheikhe koy tas waaw moom nanguwu ko mukk sa doomu sëriñ yi sa sëriñ Maodo nanguwu ko mukk moom daal ba mu nangu mooy mooy seen ba woon ci seen sénat ba donte Sénat ba tëj na sax moo tax ka ca mujj ñaan autorisation pour dem fa jooy jooy ya mu jooy waa xasarata waa xasarata maatat tariqu ulit tuqa waa xasrata maatat tariqu ulit tuqa wa qad iddaaha fajirun am fajiri ba mu ko visité xam dëgg ya fa génne ak ña fa nekkoon yonent bi di ko présider gis ñi ko donn tey mu ni te ñoom ñépp ay wayu lañu taragalu ko wax moo tax Maodo baytu boobu ak ba ca topp daf ko daan wax rekk ndax daf daf ko saf waa xasrata ma tattariqu ulil tuqa faqad iddaaha fajirun an fajiri garru bi zuxrufi ziyihim ahla alhawa wa tajarradu min kulli xulqin daahiri nee na Sénat ba ña doon secret ba tey ne ay bandi rekk lañu ne seen daje sax du daje diine nee na daje ribijong la ribijong li waa Ndar tudde ribijong c'est-à-dire réveillon waxin la ku ko dégg tey doomu daara di nga takkuwaat ku ko dégg tey doomu daara dina takkuwaat waaw boo demee ca buntu seen sénat ba fa la yàlla yare aqtaab yépp ak awliyaa yépp ndax daf ca def inna fataxnaa laka fatxan mubiinan loolu lañ fa bind pour lan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambik yow wa ma taaxar te seen buntu Sénat ba yàllaa ci bind wax yonent bi ni ko xàllal naa la yoon bu nga xam ne boo ci jaaree danaa la baal bàkkaar yi nga def bi nga nekkagul yonent baala baalal la bakkaar yi nga def bi nga nekkee yonent loolu moo yar axtaab yi moo yar awliyaaw yi xam nañ ni yàlla du mag muy font wax dëgg yàlla ba tax na tabarkàlla ñaari bayt la yu Maodo soppoon ngir bañ rekk sërxal sa bopp foo xajul loolu dafay am